fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar ak 24 Afrique Sénégal bu ko kenn wuute. xam ngeen ne jotaay bi chaque ah, talaata bu ndikkee am na tomb bu ñuy fas yéene ànd ak yéen tey nag tomb bi ñu fas yéene ànd yéen mooy nees lañ mën a taxawee ndaw ak ndaw xam naa li nga wax rek mooy day lu yaatu te waxtu yu xat kon dañ ci tënk aslëf rek. ngir ande ak mom ci waxtu nam nangu suñu borom danaan dom ji bimu juddo andal na ay waajtaay pour mu baax walew fi bañ ande walew fi euh, di di di xemem lu bon ak dara talat fukki waxtu ak benn jàpp fukki waxtu ak ñaar ak 24 Afrique senegal bu ko kenn wóote